ki yàlla tànn muhammad mësul feeñ ci mbindeef yi yàlla yi bari nañ waaye ku ci mel ni sayiduna muhammad mësta feeñ amut ci lu nëbbu amut ci lu bir madda lana al islaama wal kufra maha wa bin nasihati li kullin samaha nee kooku moo ñu tallalal lislaam moo ñu jox lislaam moo far ak kéefër tabe na laabire na ñëpp yonent bi alayhi wa sallam laabire na aw xeetam yëpp yaquudu bi zaahiri wal man ataahu lillahi fi kulli zaman nee na muhammad mi ngi wommat mi ngi wommat ci lu feeñ ak ci lu nëbbu mi ngi wommat ci ak ci baatin kan lay wommat képp ku ko topp ngir yàlla waaye fan la la wommat jëmee ca yàlla loolu nag amul benn jamono bu ko jagoo walis beneen ci jamono yépp la kon Seydina Muhammad ci dundam ak ginnaawam ci jamono yëpp mi ngi wommat képp ku ko topp jëmee ci yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb xidmatuhu anni al uyuba azhabat wal istiqaamatan wa safwan wahabat nee na lëgéeyal ko dàqal na ma ayib soril na ma ayib may na ma istiqaama sax ci ak njub dara mënul ma cee jëlee may na ma it safu muy xol bu sell bu set wecc kon liggéeyal muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ma dàqal ayib may ma sax ci ak njub may ma xol bu set lii baana kawnul mustafa raisa likul man qad fuddilu ruusa nee na bir na leer na nañ fi man nekk gi yonante bi sallallahu alayhi wa nekk njiit ci képp ku yàlla mas a jox ngëneel mooy njiitu way baax yépp mooy njiitu borom ngëneel yépp képp ku ma a doon njiit nekk ci bopp aw nit doon kilifa ci aw nit sallallahu alayhi wa mooy sa njiit qadamataahu fawqa kulli raqaba minhu staara al ghurru kulla man xaba nee na ñaari ndëggooy sayyiduna muhammad ñaari ndëggooy tànkam mi ngi ci kaw doq ñëpp kon du ku ñuy tëkkale ak kenn ndax ki taxaw ci sag doq nim la tiimee sallallahu alayhi wa ñaari ndëggoom mi ngi ci kaw bépp loos mbooleem sang yi tànneef yi mbooleem way baax yi ngëneel luñ mas a am rek ak àbbu la ci moom lañ ko àbbee min hustaara al xurru kulla man xaba bépp ngëneel rek sang yaa ngi koo abbee ci sayiduna muhammad muhammadun misaaluhu lam yaati fii ma wa abadan laa yaati nee sayiduna muhammad ku mel ni moom misaalam mësta am ci lu paase te ba faw du masa am ku mel ni moom mësta ñëw ci li paase ci jamono yépp te ba faw abadan ku mel ni moom du masa ñëw sabata anna rabbana lam yuridi mislan lahu fa misluhu lam yaridi nee na lu waral lool mooy dafa sax ne yàlla nammu bind ku mel ni moom moo tax ku mel ni moom du masarot ci jamono fa misluhu lam yaridi laxul siyaadatu lahul baraa yowma alastu walada shafaa nee na moom am na ak càng am na ak raw mooy sangu bindeef yépp moo raw ñépp kañ yowma alastu ca ëzal ca aalamul arwaax ba yàlla di wax alastu bi rabbikum mu njëkk tontu ne bala aha kay am na fu mu jullee ci moom ne yaa rabbana salli ala wala salli wa salliman ala man qad ajaaba bi balaa yowma alastu awwala qabla dhawi takallumi kon yowma alastu waaye beneen bi mooy la da shafaa bés pénc ca mag nga xam ne moom la ko yàlla jagleel foofa mooy sangum ñëpp moo raw ñëpp kon moo mooy sangum ñëpp moo raw ñëpp démb mooy sangum ñëpp moo raw ñëpp ëllëg li ci diggante bi doy li wax huwa annabiyu wa walqalil wa huwa alxabibu walimaamu waddalil nee na moom mooy nabiyullah mooy rasulullah mooy qalilullah mooy xabibullah waaye mooy imaam imaam mooy mooy njiiti mbindeefi yàlla yépp mooy tegtal bi ku bëgg a jaar ci yoonu njub moom ngay topp mooy ki yàlla jox xam-xamu nubuwa mooy ki yàlla yónni mooy xaritub yàlla mooy soppeb yàlla mooy imaam bi mooy dalil bi barra'ahu l badiu min gayri jamaal wa saanahu l an gayri kamaal nee na al badi yàlla yàlla mi nga xam ne mooy badiixu samawaati wal ard yàlla mi bind mi ndeef mi fent lépp mi fent mi ndeef moo ko dañal ci lu dul taar léppam rek jamaal la yàlla mi nga xam ne xudduus la ku sell la moo ko ñoŋal ci lépp lu dul ak kamaal dafa mat ci wet yépp wasaanahu l qudduusu an gayri kamaal kawnu nabiyi l muntaqa muhammadi xayral waral muxtaara and samadi waaw maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk gim nekk di di di di ki gën ci mbindeef yi loolu lu sax la fa borom bi subhanahu wa taala